dede eh, duma tak mas pas parce que man kese maa nekk récemment lañ wax ah, boo nekkee nit ñi suma ma suma ñet nit wala suma ñaar nit ma andal ñoo xamna ñu ma andax ñom ma andal nit ñi damay sol masque. est ce que jàppagum nañ la di la laaj masque yow kese sa auto non non non man ba léegi nak man kese ma andé mo takul masque dama ko laaj mais dégg naa am ñoom ne dañ leen dañ leen laaj masque lu tax takk masque man man kese ma andé mo tak masque mais su ay nit mom dama sol masque. way stade bi comme ñu ngi Dakar ñun ñep ci mbolo lañu nek da nga war foy dox da nga war tak bu yow da nga war tak parce que yow nga yow nit ñew nuyu la jóge fa la ñëw nuyu la xam nga nekkatoo yow kese kon boo nekk di nga war a takk masque boo demee nag bu sa néeg bu yow kese nga nekk sa néeg bu la neexee nga bañ a takk masque nan nga gisee yow par exemple yow kese nga nekk sa biir oto nii ba pare nga takk masque te loolu jàpp nga ni lu jaadu la wala waaw comme comme comme par exemple comme nga nekk yor particulier par taxi auto transport particulier boo xam ne ni yow kenn dogg la ay say vitre climatiseur lépp benn air duggul kooku boo boo ko takkul pour man garaawul quoi lan moo tax waaw ah, ah pour man waaw ah, comme wàllante lañ wax yow kenn dogg yaa nekk sa oto oto bi amul fenn fi air di génn pour man boo ko takkul moom pour man garaawul quoi. du fépp la nga ko war a def su fekkee lieu public la foo xam ne dafa bëri nit foofu mun neen takk masque mais su fekkee yow kese yaa nekk du dox foofu te obligé nga wàccee sa masque wala foo xam ne dafa bëri nit. soo waree takk masque en public nga ko war a takkee mais su fekkee yow kese la waroo ko takk mun nga ko wàccee tamit nga mun a nooyi parce que soo takkee ni masque toute la journée baaxul tamit la nga li ngay nooyi soo ko dugalaatee si yaram baaxul si santé aussi. ci sa biir oto yow kese. war nañ ko mun takk. parce ah, dañ koy tak rek wala takuñu ko nañ tak rek wala takuñu man lool la gis takal wala nga baña tak parce que buñ la né boy dox kese mën nga baña tak mais lool mën na tax dem ba nga bassé les bras lool la rek nañ ñuy masque yi ñu tak bo takulé takko mais buñu waré tak rek nañ ñun ñëpp ñu tak nek nga auto neko auto dox nga yow kessé wala doxo yow kessé défé na nit mo koy wal moromu nitam donc yow kessé bo nekké sa biir est ce que jar na ngay tak masque sa biir auto mais takal rek mo gënu wër takal ndax fièvre dafa sensible comprendre nga tey jii nii xam nga mun nga nekk sa oto yow kese xam nga nga dem kenn xamul fi nga demoon yaa ngi dégg exemple fagar woo xam nga lu ma la wax nga négliger ba feebar bi laal la yaa ngi dégg nga dugg sa oto kenn xamul yoon yemul si benn mun nga dem yàpp kenn xam nga lu ma la wax nga saafanteeg moom mu taqal la xam nga mooy loolu nga amee feebar après boobaa léegi loolu noonu day xam nga day law quoi. ñu ko respecté wu ñoo ëpp ñoo xam ne ñu ko respecté tamit depuis ministre bi génn barki démb soo xoolee bu baax ah askan bi lu ñuy doxee ah citoyen lu ñuy doxee ci lañ commencé solar masque yi respecté waat ko parce que amna benn moment bo xamné ne gars yi respecté ñu ko woon. gars yi est ce que gëm nañ ni réellement ni mu ngi fi. non feebar bi amna na bi amna mais ñuko gëm bëriwul ñu ko gëm bëriwul parce que dañu né à chaque fois nombre de cas yi yokku jéeg sa mu wàññeeku parce que dañu né ya quelque chose de louche quoi. xam nga lan moy problème bi moy dañ ñu wanul les cas cas yi ñuy tuddal gisuñu ko te sénégalais mom preuve à l'appui le bëgg. buñ ñu doon wan peut-être les malades dinañu doon gëna a sensibiliser loolu la rek. mais secret médical ak aussi euh, sutura euh, côté boobu aussi faaw ñu bàyyi ci xel. moom sutura moo ñu sonal mais peut-être comme dafa doy waar fi ne dafa jaxasoo wanoon ñu euh, nëbbu flouté visage yi wan ñu bu ko defee dina gën a mën a sensibiliser. nga ni looloo tax sénégalais ñu si bari gëmaguñ feebar bi. parce que li ma jaaxal mooy ba léegi nit ñi dañuy ne amu am na ñoo xam ne ba léegi dañ gëmuñu ko dañuy ne feebar bi politique la. dañ gaaw a fàtte affaire bi ñoom du leen dal mën na dal keneen mën na dal ki mais ñoom au tant que néew leen tëll rek dañu yaakaar ne affaire bi du leen dal dañ koy faté quoi dañu mëna a tamit li nga xam mom modi communication biñ ci wara def mom lañ deful non je pense que ne def nañ communication yi wara def yépp quoi vraiment musiciens yi way nañu c'est à la télé partout corona corona corona corona corona mais euh, euh, euh, sénégalais ci bopam mo tamul manam teunk bopam manam wàññi bopam te masque bi da koy wàññi te bëggul koo wàññi Sénégalais ci boppam moo bëggul lu ko wàññi.